ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilumi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzubillah bismillah in waliyallah téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre seen émission yi nga xam ne wala leen dëgtal fii ci biir Amsa TV la télé solution ñi nga amaan bëgg tey dellu si waat nga xam ne moom lañ ciy àndal saa su ne di Cheikh Moustapha Dieye bëgg waxtaane waat itam lenn ci xam-xam waaye itam lenn ci xew-xewi réew yi plus particulièrement tey ci sunu jotaay bi Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel itam bu baax a baax macha allah rabbi itam te di la masawu coono. daan laan salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sant yàlla. julliti yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sant waajur yi. ci sant gi nu sunu borom kàttan ne ba nu man ko sant ak sant gi ñu koy sant ci wërsëg gi nu wërsëgi waajur yi. di leen ñaanal yàlla yërëm leen xare leen aljanna amiin yaa yaatal seen bàmmeel yokk seeni leer defal ko képp ku tëdd ci biir suuf ci daraja yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal ñi nga xam ni ñi ngi tëdd ci hôpital tawat mu metti lool mm-hmm. ñii am man faju te taxul nu wér mm-hmm. ñii amunu te taxul nu wér lépp nu jëlaat ko delloo ko yàlla di ko dagaan ni yàlla ñëpp wére ci kàttanu yàlla ci yërmandeem ci tabam ba yow mi may dégg tëdd ci kër yi yow mi may dégg tëdd ci hôpital ba ndax ñi malaat ne ci kër yi ëpp sax mhm. li ne ci hôpital yi kon yàlla na leen yàlla defal wér di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw te soxla lool ñaan ndax am na ku caabi féete ginnaaw këram tas na am na ku caabi féete ginnaaw bu maytuwul bu génnee fitna wala xel mu jaxasoo walla dundagu jaxasoo wala sax mu jàpp bokkatul ci société bi yépp te ñett di dugal nit foofa mm-hmm. nit ku tooñ mm-hmm. ak nit ku tooñ mm-hmm. ak ku juum ci ay mbiram ñett yi rekk fa am nag moo tax àtte doy waar yonent bi salaay sallam xam li ci àtte ba fonk àtte ba wax ci àtte ba àtte sax luy àtte nag àtte àtte nan ko nag na nit ñi di bàyyi xel lool àtte gi ni àtte àtte nanu ko nan la nu àttee àtte gi nuy àttee yow miy àtte te li ngay àtte xamoo ci dara lu dul sa teeyaayu bakkan yàlla nee safara nga jëm neewul de bàkkaar dana la ci fekk de safara nga jëm <laughs> ndax yaa ngi sànki njabootu jaamur baa yaa ngi engagé wu loo xamul ak kiy àtte <laughs> waaye di parparloo ca nam ko neexe mm-hmm. ca namu ko sentiire ndax ñii daal neexunu ma mm-hmm. yàlla nee na safara nga jëm yow miy àtte nag xam li ngay àtte mm-hmm. ba pare te tegoo ko ci yoon ngir ndaw sii dama ko war a donn ngir ñii ñoo wóolu ngir ñee wax nan ma dëgg waaye déggoowuma ak ñoom ñii may indil palaatu añ sag jamono ju ne ndax seeni moyen moo gën a baax lu nu wax lool laay wax moo xam imaam nga moo xam boroom xam nga te sax doo imaam moo xam ilimaan moom mooy kuy jàngale rek kuy koo xam ni day orienté ci taxayoon mu xam-xam ilimaan nag kay jiite ca jumaa ji <laughs> ak ca jàkka ji ak fudul ca jàkka ji kon sëriñ bi am na solo nit ñi di ko xamee noonu mhm. kon nag ñetti njuumte yooyu am sëriñ bi am na koo xam ne ñu ngi ko tëj de mhm. moom xamul lu mu def wallaahi yàlla xam na ko kon àtte diis na mhm. kon yow mi koy def boroom doole tax jox la alal am koo xam ne amul woon doole moom suufam nu nangu ko poqati ko ngir lan amul lum ca def moye nga ko jaay doole nga ko jaay ndax xam nga diw lii la xam nga diw lee la xam nga diw jege na la xam nga diw te léeg-léeg nit ñi di ko wax ah. mm-hmm. hmm. maa la gën a rëy tànk. maa la gën a maa la gën a loxo. <laughs> wallaay doon nit. wallaay du nit. am na ñu la njëkkoon am. Mhm. am ko man ko. ca mhm. jamono ja nga xam ni am yombul ceeb bu niin yombul woon dara yombul woon non lo ne daal leen tiim waaye sëriñ bi ananu ñu ngi ci biir bàmmeel yi. Ah. kuy xalaat loolu nag. Mhm. di sóoraale loolu nag. te xam ni ñëppay dee. da nga bàyyi xel bu baax. loolu entre parenthèse la. di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaanal ci réew mi jàmm. sëriñ bi. di ñaanal ñi niy ñaanal. mooy soppe yi ni teewul nit sopp la rek doy na ñaan nit bañ la it doy na ñaan bi ndax nit bu la bañee moom yéenewul la jàmm mhm. nit it bu la soppee yéenewu la jàmm mhm. waaye man nag sama problème mooy bu extraordinaire bi laay def maa ngi nuyu soppee maa ngi nuyu noonu yi <laughs> maa ngi ñaanal ñëpp jàmm <laughs> yàlla ko yàlla def <laughs> gaa ñi nuy teewlu mag ñi nuy teewlu yaay yi nuy teewlu mhm. kilifa yi nuy teewlu rakk yi nuy teewlu soppee yi nga xam ni sax eh, walla yàlla xam na ko seen seeni bët sax neexut waaye diglu gi rek ñu ngi ni ciy ñaanal yàlla ak di ci ami mbégte mhm. kon yàlla na nu sunu borom yàgg di nu bégal ñun ñëpp te di leen defal sutura di ñaanali sama njaboot gi ci àll bi yàlla taxawu leen aar leen mhm. sàmm leen te musal leen di ko ñaanal njaboot gépp nag ndax njaboot gépp sunu njaboot la mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Talla aleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha Dieye ci nuyoo bu am solo bi waaye itam ci soññe gi ak dàgg gi nga xamante ni mënta ñàkk ndax defe naa ne lu mel nii moom dañ koy xaar ci seen seen jëmm yi macha allah rabbi kon dàgg gi itam day daal di am solo ndax li wolof di wax naan paaka moom lu mu ñaw ñaw ñaw du tee ñu ñu ñu daa daasat ko mm-hmm. kon da ciy am solo lool macha allah ñu rafetlu ko lool mm-hmm. waaye defe naa ne itam ñi ko moom mm-hmm. euh, dinañ ci bàyyi xel ndax damay wax ak léegi rek euh, sama benn euh, sàng ndeysaan maa ngi koy nuyu di satub sëñ Baara Cheikh Baara ñaan mu naa maan fii ne dafa mel ni adduna bi ñu toll nit ñi bàyyeetuñu xel ñetti fanu bàmmeel daf ma ko wax léegi ñu coupé ma toog ci lañ dugg war tàmbalee te moom nga tàmbalee waat ñetti fanu bàmmeel lu jar a bàyyi xel la te mm-hmm. war na tey ji yel na àdduna wërngal këpp bàyyi ci xel te xam ni te mm-hmm. kenn du ci mucc kenn du ci mucc kon dàggat bi am na solo loolu macha allah war a déjeey mm-hmm. tubaarkal la euh, na ci fi ni xam naa ne ni fii ñuy tàmbali rek tey euh, yi ci actualité muy li xew ci ñaari fan yi jaxase mbir mi lool fi ma koy tàmbalee mooy suñu pikin gii ñu dëkk xale bu jigéen bi xam ne moom moo lëmbe réew mi tey mhm. ñoo fekk ko ci biir boutique am mhm. agressé ko rey ko mhm. jël alalam dem ak moom man bi bi ko sàppar di maa ngi taxaw fa laa bëggoon ñu ñu ñu tàmbalee lan moo xew li xew lan la bare yi moom fi ne tàkkaat naa si seex Moustapha lan nga ci xalaat ak sëriñ bi yaay bàyyi nu delloowaat cër yàlla ci li mu moom ndax yàlla moom mooy cëralaate mm-hmm. li nu koy jox soxlawu ko mm-hmm. ndax moom moo nu koy jox mm-hmm. <laughs> xam nga cër bi mooy lan nan la nit di juddoo fi mu wara juddoo yor yenn xel yeeg yenn xol yi sëriñ bi mhm. il faut it nu dellu ci àtte yàlla bi du nu dañ di ko wax mhm. bu doon ku rey nu rey la mhm. njaayum paaka mi sax léegi mu wàññi ko <laughs> jot naa <laughs> waxuma la téye paaka de njaay mi njaayum paaka bi laa la wax léegi mu wàññi <laughs> ndax nag sëriñ bi ñetti at doo dégg ni nu diw dóor nanu ko xestale jam na ko paaka jam nañ ko paaka rek mm-hmm. mm-hmm. waa pour lan kon paaka warul toll foo xam ni dafa war laaj autorisation a ah, goon gi am autorisation de moom doo ko dégg fenn kenn du ko doxantoo paaka nag ñu ngi koy woddoo léegi di ko lu ne ci àdduna mm-hmm. a ah, ni nu amul solo ray gi daan na am nag waaye dafa ëpp jamono ji nu jàpp réew mi dana am sécurité bu doy. Mhm. mbir mi gëna a raw sëriñ bi. Mhm. ki yor palaasam. abba xaalisu jaamur. Mhm. bu jëlee garñee teg ca bunt ba. di ko fay sak weer te la mu koy fay la waroon yóbbu këram. fan la jàmm di ci jigéen. ju toog di liggéey xam ni boo xëccoog moom sax mu xëccoo ak yow war nga ko bàyyi te xam ni billaahi bu doon lu mu moom la mhm. dala koy bàyyee dem mhm. nga rey ko mhm. xamoo dafa ëmb xamoo lu ko dal xamoo ñaata njaboot la bàyyi nga ni loolu dañ la jig maa la ko wax fii bu dee xamuñu leen xaw ma xam nañ leen nam dédd dee xamuñu leen daana feeñ léegi man maa la ko wax fii man man maa la ko wax ci lu gàtt nag dana feeñ hmm. man maa la ko wax su ma la waxee nag ba joxañ sama mm-hmm. bopp rek mm-hmm. xam naa li ma lay wax billaahi lazi laa ilaha illa mm-hmm. dana feeñ te yàlla na yem si feeñ gi sax sëriñ bi dana feeñ te daanu torox ba yëg ko inshallah xam nga nit ñi léeg-léeg nag dañuy caaxaani yenn naan torox sunu boroom a ko yor <laughs> amul lu fi yàlla yorut dëgg dëgg waaye képp ku toroxal nit danga nga torox alaakulli yàlla te torox weesuwul mm-hmm. fekk nit ko toog mm-hmm. ñaaniwul mm-hmm. yalwaaniwul deful lu ñaaw waxu ko toog ci liggéeyukaayam xamoo dafa leb banque xamoo nu mu def ba am ko sëriñ bi nga ni ko ko doñña paaka toog nga ni yow góor nga nga ne yow jigéen la jur mhm. nga ne yow leneen xam nga lan moo tax ma ni nëggu papa yeeg yaayi xoolaat seen bopp mhm. sëriñ bi man dama yaakaar ni lii di xew nii mhm. xaw ma nu mu demee nag <laughs> waaye man dama ni yaa quelque chose ah, am na lu xew moo xam ca ndey ja la moo xam ca baay ba la waaye am na lu xew <laughs> am na lu lëndëm ci xolu ki koy def baa mu lëndëm ci xolu ki jur doomam baa mu lëndëm ci xolu koo xam ni danu ko def loolu mm-hmm. ndax def-def nag day am ndax du mm-hmm. ñépp ngay sàcc mm-hmm. du ñépp ngay raw du derit yépp ngay tuur ndaw sii nag man mi jël naa ci intervention ña ko def man maa la ko wax fii daanu ko gis bëccëgu ndar kam kam kam ma goo xam ni mbokk munu mën a bokk daanu am gàcc mhm. yal na leen yàlla weer yal na leen yàlla weer eh. yal na leen yàlla weer waaw waaye nag sëriñ bi mhm. lool du kaa bi de mhm. kadee dee na te kii dañuy jël rek yóbbu fële pour mu toog surtout dooru nu martu dooru nu ko yat xëpp nu ko ndox mu tàng bu génnee defaat ko te bu ko deful dana am ñu koy def ndax man lu ne naa gis nu koy waxtaane mhm. waaye kaso yi ci yenn yi nga xam ni nit dana ko def ba nu xam ni doo ko def waxuma nag nit ki defut mhm. ak ki nga xam ni ay mbiram dara leeru ci mhm. loolu moom nanu ko gëstu ba mu leer waaye ki mu leer ni ni def na kooku moom dafa war a am saafara ci saa si ba nu xamal ni ko li nga def sa téeméeri moroom duñ ko xalaatati def ci yoon léegi scooter yi ngay gis. Mhm. xam nga keroog kii wax naa ko sax. Mhm. ba ci yàgg ma ni ko génneel loolu. Mhm. man dama leen di sóoraale. ci lépp nag man ni may gisee nii damay dox. waaye dama leen di sóoraale sóoraale goo xam ni ah, man awma ci sax kersa nag. awma ko ci. waaw man dama jàpp ni danga ma bëgg toroxal mhm. du ma la ko may ah, dëgg waaw du ah, aw ma sax insister nag mhm. balaa nga ci doon xam dara soo ma jegee mhm. xàmmeetuma sa bët <laughs> xàmmeetuma sa nopp xàmmeetuma sa dara ah. est-ce que Serigne Moustapha li mu ci man ñëpp ko man jigéen du man loolu kon na gaañi aaru na gaañi fasonu na gaañi defar seeni yaram yi waaye nanu téye seen njaboot gi Serigne bi loolu kese de sacrifice gaa ngi mel ni tulleeg màlli ray gi da xam lu mu doon. ah fi ne moo yéem ñëpp. danga ko xam. Mm-hmm. léegi yow fi nga xam ni ay foore la sax nga war fa dem yow dundaat beneen air. Mm-hmm. xoolaat sa réew lu fi am. Mm-hmm. ñemeetoo fa dem. ngay dunda loolu rey gi mel ni tulleeg mal barka démb dégg naa fii dóor nañ fi agresseur dóor yu métti yoo xam ni. Eh, dégg naa sax dañ doon naan dóor ya dafa ëpp. ma ni ko yéen da ngeen xam la mu def nu mu toll. nu mu toll dëgg dëgg. kenn da ko xam. ñaata jaam la toroxal. nit ku ne am nga bis nag. Mm-hmm. ku ne am nga bis gis nga heure bu nee la noos jàppale dóor la ba nga ni wet. Mm-hmm. gëmal nii jàppoon nga ay nit dóor leen ba ni wit waaye gëmal ni sa bis boobu lan la fay. Mm-hmm. te noonu la demee yi xam Muhammad du wax luy daj. gis nga sàcc noppalewut. liggéey noppalewul mm-hmm. kon taamul liggéey te bàyyi sàcc mm-hmm. bu doon jël sa alal rekk jafewut mm-hmm. waaye jël nit ba pare rey ko yow nga ni da ngay neexleeti billaahi doo neexle doo masa neexle sa dund gi loolu nag sëriñ bi nun bañunu ci dara man moom li may faral di wax am na foo xam ne bu mun fa tolloo bu nu bañati posone nit sunu yaram yi poson goo xam ni ku la laal yàqu ku la laal yàqu ku la laal yàqu loolu daal man sëriñ bi mooy li ma ci wax di ñaanaat borom réew mi. Mhm. mu dimbaleetunu mhm. réew mi soxla na sécurité lool am na fi nag. Mhm. waaye daf fee mënul doy ndax léegi sëriñ bi danoo mënatul xàmmee fu ne la janax di génne de am na ñoo xam ni nag du doomi aadama de. janax sax moo leen tane ah, ndax nga gëj nga gis saaku gerte bu yàqu mm-hmm. li nit ñi di yàq janax yi na ko ci rey xatit mm. dóor jam lan jox ma sa alal téléphone nangu léegi foo dem fekk leen fa ca jàng ya ca leneen ñi ca boobu caaxaan yi ci fu ne sëriñ bi ni nu jàmm nan lay amee du am bés bu ne sàcc ñëw sunu kër yi mm-hmm. bés bu ne nag dana ko jaral wut xaalisam ñëw ni sëñ bi damay seet c'est ça waaye nag daa xamut. Mm-hmm. ndax lu mu ko jaral. Mm. jaral na lu ko raw lu leer. <laughs> kesi ci àdduna. Mm-hmm. soxna soosu yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla xare aljanna. kooku la ñu xam de. Mm-hmm. waaye am na ñoo xam ni euh, bërka démb rek. am na ñoo xam ne seeni baaraam fii ci euh, Ouest Foire gi fii euh, ci pont Foire bi mhm. lañu fekk benn waaye di jox ma li nu yor mun ko mokk waa ji fii la ko jam paak fii <laughs> ba kañ lii ci àdduna sëriñ bi jot na jot na mhm. jot na nu defaru sunu bopp jot na nu wut ay tul jàkkaarloo ak ñoom mhm. jot na ku mënul gàddu jaasu nga jël na jigéen ñi di wut saag yoo xam ni dana mën a defu cour mhm. ba pompe à waaw cour kuur ci boppam ba pompe à gaz ah jar na ko ah, ah ñu ngi may dégg xam naa daanu ree ba di ah jar na ko jar na ko kat waaw boo gisuloo xam balaa mu la koy ngàdd nga nga ngàdd ko ko ndax xam naa ni jigéen lu mu mënoon ragal na nag ndaxte waaye bu nee li tépp dóor moom balaa ngay koy toppatoo mhm. fekk yow dox na dox dox na dox waaw wala mu fi mu wol wol lu leer saay-saay du am fit saay-saay du ñeme waaye mani la na da koy jar mm-hmm. yal na yàlla aar ñëpp na yal na yàlla musal ñëpp yal na yàlla aar njaboot gi waaye sëriñ bi naqarlu nan ko lool tey jaale mbokk yooyu mm-hmm. di leen ñaanal yal na leen yàlla may xolu muñ mm-hmm. te xam ne ñi ngi ànd ak ñoom nag te daanu am ndam lu rëy. incha allah te incha allahu. ray googu du bokk ak ray ya daan am. incha allah maa la ko wax fii nag. yàlla bëri na sutura incha allah yàlla na duñ ci yem parce que yaa ngi koy wax léegi nii fi mu ne daanaka buñ ko xoolee tamit fële ca ca ca suñu réew ma la de Maroc. Mhm. borom kër bu jàpp soxnaam. Mhm. jamate ko juróom ñaari jam jami paaka. Mhm. li ci métti yëf yi li ci gën a méttiti foofu itam Cheikh Moustapha mooy bi mu koy def ci kanamu doom doomam ju am at la ko defee. xale boobu a baayam def noonu ndeyam. Hmm. est-ce que xale boobu tey jii bu màggee dina am conscience ak tam loolu la noonu nga xam ne boroom këram def na ko soxnaam. Hmm. est-ce que tam naturel na. sacrifice xabtal dana def hmm. xam nga léeg nit di xabtal ñaar ñuy sëy. waaye lii problème mooy xabtal gi muy def la xam ban xabtal la. <laughs> loolu ko xel. am na xeetu xabtal yoo xam ni. dana la tàngaloo ndox. baa dana la tàngaloo diwlin mhm. baa danga def loo xam ni àddunaa lay ba mhm. waaye nanu bàyyi xel ni du nit ki koy def la yàlla da da topp de mhm. nit ki jamaate du moom la sunu borom de topp yow mi ko yóbbu ci dimension boobu la sunu borom de topp nu bàyyi xel loolu nag <laughs> gëmal ni lu mu tëdd danga ko tëdd benn ñaareel bi si sëriñ bi am na xeet yoo xam ni bu fa nit yeggee ba di ko jëf de gëmal ni am na lu nu rocc ci moom waaye am na lu nu rof ci moom mm-hmm. nit day am lu nuy rocc ci yow am lu nu roof ci yow waaw moo tax nit day am kot mm-hmm. ba rocc gi du yomb roof gi du yomb <laughs> dafa am solo mm-hmm. sëriñ bi loolu xeetu sacrifice dana ko def xeetu xabtal yu doy waar dana ko def ndax wax dëgg yàlla ni anamu beneen beneen faset bu doon rey kese la mhm. non beneen faset sax gënoon na rafet boobu te benn rafetu ci na benn jaatu di rafetu waaw dara rafetu ci mhm. na nag tiim sa soxna mhm. sa doom taxaw oh. xale boobu dootul ñeme baayam ba ba muy sàngoo suuf dootul ñeme ci àddunaam ba ba sàngoo suuf dootul ñeme sax bu moytul doomu aadama ba ba muy sàngoo suuf xale boobu noonu bu lool desee ci boppam su màggee image boobu rek lay gis mhm. image boobu noonu lan lay ñëwaat ci moom est-ce que dafay jàpp ni dafa war a def loolu baayam te mën na bañ yegg ci boobu at est-ce que du day jàpp ni nit ndekk nii la nit di def nit ba mu kiiwee moo tax dafa am yoo xam ni xanaa xamoo toog ak nii sax di saaga ak sa njaboot sax erreur la <laughs> toog ak nii sax di réactionné yenn yi ak sa njaboot erreur la ah, parce que lu mu yu rëy sax ndax ba léeg-léeg xale bi du wax mhm. waaye su la xoolee rek da ngay xam ni yaa quelqu'un mhm. du wax nag mhm. waaye bu la xoolee rek yow da ngay xam ni am na lu xew yooyu nag dafa dafa doy waar dafa doy waar waaye loolu it metti lool sax lool lool sëriñ bi metti na soxna si fa mu bàyyi ko metti na ci mbokki waa ji nga xam ne xaarul woon xaarunu woon loolu ci loolu waaye metti na ci koo xam ni rek jullit nga ak foo mën a bokk walla jaamu yàlla boo mënti doon nga dégg loolu rekk mhm. loolu leneen la ci yow mhm. kon sëriñ bi yàlla nu yàlla bàyyi ak sunu sago te delloo sinu ak sunu sago mhm. sëriñ bi nit ñaa ngi def de fi tollu moom lu waay aaru xeeb ko sécurité bi demeetul noonu de mhm. ci saayir nag ak ci baatin day xale yi doom yi ngay jur rek ni wax ak yow benn taux boo xam ni dangay xam ni lii du neen sax mhm. <laughs> moo tax nag sëriñ bi am na solo mhm. nu bàyyi xel loolu waaye sàkki sarax tey muslu ba nit mën na bañ a gis sax musiba bay dund musiba surtout loolu. macha allah mu doon lu am solo wax nga ko léegi nii ba foofu laay retentiraat parce que nee naa tey jii est ce que tey jii fi mu ne solution euh, solution bu adéquat. waru cee mën a am ndax bu ñu xoolee tamit gis nañ fële tamit ca France. Mhm. la rey. Mhm. ñu naan deetawaay mu mhm. kon xabtal bi ngay wax léegi dañ ko ciy mën a nangu. def def dañ ko ciy mën a nangu. mais tey jii solution bi lan la war a doon te li ci doy waar sëñ Moustapha ay sénégalais rek ñoo koy def. waa xam nga li sunu problème lenn la sëriñ bi. Mhm. ni mag ñi daan yare. Mhm. danu ko yaareetul ñun. ndax li xew France ak ki koy def France di sénégalais loolu am na fii ci réew mi sax. Hmm. ndax yow mi nga xam ni yaa ngi naan sàngara ba tàqalikoo ak sa sogo te amagoo vingt <laughs> pour sa serveur jaxasoo pour nga gaaw a bañ a doon nit pour nga doon leneen day yomb torop rawatina boo ci bëggee bu doon euh, jorox baadi fóon waaw drogue dure fóon mm-hmm. foofu boo fa bëggee tollu sëriñ bi mm-hmm. te mag ñi daawunu yare noonu mhm. bu njëkk da nga daan am fukki baay téeméeri yaay mhm. téeméeri bàjjan mhm. <laughs> su kii manul si yow dalay paas keneen nit daan nanu ko yar ba jëli ko ci kër yóbbu ko ni ko demal nga vacances sa kër bàjjan ah, boo ñëwee changé amatul ñun ñi ñëpp def nañ ñu ko waaw lay ndeysaan ngay ngay wax nit sa yaay njëkk ñëw nga dem ci kër sa yaay njëkk ñëw mhm. di la laaj lan la la di wax ak lum la def jàmm doom nga jur sa doom nanguwoo sax nu wax wolof nanguwoo sax nu làkki séeréer sax nu waxi euh, tukulóor nanguwoo sax nu làkk seen langage mhm. waaye nga leen yéege ci état boo xam ni ña fa nekk wax seeni waajur waxu leen dëgg defuñu ko muy dara <laughs> ñàkk bañ a respecté seen yaay defuñu ko muy dara te man gisuma fu nit amee indépendance ci dundam gépp yow nga yow ngay roy ci ñoo xam ni bu nu yeggee dix-huit ans dañu am indépendance <laughs> bu la sa yaay dóoratee kaay boole ko mhm. te mu jur la onk la ba bëgg a dee wasin la mhm. xam ni mënoon na dem alaaxira bu la sa baay dóoratee kaay boole ko yow te yow yow yow yow nga xam ni yow boo xoolee sa baay li mu daj ci yow. sa mhm. baay la waroon boole ji. Mhm. ndax def nga ko lum la defut <laughs> waaw waaw. Mhm. yuut nga ci kawam. yuutul sa kaw. sa baay bu doon fanaanee wax ak di yendoo wax sax yuutul sa kaw te yow yuut nga ci kawam ba taay. ndeysaan yàq nga ay nelawam ba tey mm-hmm. yi dama indi bàyyi de mm-hmm. waxaguma sax yaay nga muucu ko ba mu ba mu jeex tàkk mm-hmm. ci weenam te bëggul ku bëggul nga xiif bëggul nga mar lee léeg sax lekkam demewul noonu ndax wér gi yaram mayu ko waaye mi ngi lekk ngir nga lekk yow nga wëlbati ko ray ko baa nga toroxal ko baa nga dóor ba diri ko daan la dóor ba diri la nga amaat sët bu lay dóor ba dëri la sët booba yàlla boo fi dunda nag cent de hmm. ndax léeg-léeg am na mbugal yoo xam ni da ngay bëgg a dee doo dee sëriñ bi kon yooyu noonu dafa mën a ñàkk ci sunu dund gi hmm. man nag li ma ci wax lenn na hmm. nanu defar njaboot gi ñoŋ njaboot gi tey denc njaboot gi njaboot danga koy denc denc am na nit ñi kese duñu ay nit nit ñi dafa am ñu rax nu bàyyi xel loolu moo waral nit léeg lee di mer ba ci yàgg génn dem yoonam mm-hmm. <laughs> rawatina nit koo xam ni day jooy rek day jooy rek day jooy rek loo ko def pour mu jooy kooku ku la ko wax denc ko ku la ko waxul denc ko ndax am na lu ne ci moom rawatina koo xam ni bu meree mën na bañ a lekk fii ba ngoon mm-hmm. yooyu buñ ko doon bàyyi xel du doy waar seetaan waaye bàyyi la ak sa indépendance fu la neex dem lu la neex wax di bëlët caabi meer bi eh, oto bi nga jël yóbbu ñaata xale yi dee ci ca kenn xamut di bëlët buy dem ci noir bi alors lu ko fi jar ci àdduna te ni nu kenn du ko fi waxee xale yi xoolal balaa ngay xam ni caaxaan gi bare na rek mm-hmm. bu caaxaan di am j'aime yi day mel ni tulleeg maal mhm. aimé bi mhm. ak partage waaw partage xam nga bu dee lu baax day am sëriñ bi daf leen ni déranger ci ñenn ñu bari sax mhm. am na nag ñu bëgg lu baax lool sax dëgg yàlla am na ci nag digg yàlla imagine loolu sëriñ bi kon loolu parents yi lan lañ ci war a jàngate ah kon naa gëstuwaat sama njaboot gi ndax ñii niñ ciy bàyyee xel niñ ciy seetloo nit nag boo nee faalewu ma kenn da nga tasanteeg lu la faale mm-hmm. te boobaa da ko faale loo bañoon sa kër bàyyi da nga ko nangu loo bañoon ci say mbokk da nga ko nangu mm-hmm. dana la torturer ba ba nga xëy dee mm-hmm. te doo am lu leen neex ci sa xol moo tax ku ne xamal fi ngay dëgg sa tànk sunu borom suturaal nu certain la réew maa ngi toj adduna baa ngi toj saafara nag am na ndax alxuraan kenn changé wu ci dara ba léegi te yàlla xam-xam def na alxuraan def na lodul alxuraan mm. kon nag waruñu son waruñu tay waruñu tumuranke mm-hmm. Seex Taala lii laa fay dénkaane ne kilifa yi jugaat xoolaat njaboot gi mm-hmm. te mu jaral leen lu ne mm-hmm. te sunuy kilifa yi defaraat seeni comportement surtout ndax léeg-léeg yenn yi ay rànkiñe da ci am ak bay bayal <laughs> waaw am na doom yoo xam ni seen yaay yi jurunu leen de ñoom ñoo jur seen yaay yi mm-hmm. mère bi day ragal doom ji ba du ko wax dara mm-hmm. ndax xam na ni doom ji fitna rek la koy indir ragalu ko fitnaam la ragal mm-hmm. <laughs> ragalu ko fitna ji la ragal waaye sa waajur ragal la gàcc du ko weesu yàlla nañ ci yàlla musal amiin mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moussa wax nga ko léegi ci kilifa yooyu foofu lay dal di tàbbi si waat ndax bu ma xoolee fi ne ñi faatu ñëpp li ci ëpp ci ay jigéen lañ mm-hmm. mais tey ji ana tey njiit li nga xam ne tey ji moom la moom la gouvernement Sénégal teg muy ministre bi yor wàllu jigéen ñi mm-hmm. sëñ Moustapha dañ ko déggul benn yoon mu wax te li fi dee lépp li ci ëpp di ay jigéen mhm. te tey jii li ngay wax noonu kilifa dafa am ay responsabilités yu mu war a jël mhm. te ba léegi dégguñu ko mu wax man loolu bokk na ci li ma équationné tamit mhm. kon kilifa bu jël responsabilité am lay niru ah xam nga sëriñ bi li ma jàpp bokk xam nga man comme léeg duma du sax ci li ma jàpp bokk ñaar rekk a mën a am bu dee mi ngi ci réew mi te xam ni mbir yi deme yoon la mu wax mhm. mbir nag du nu bàyyi sax ba mu xew ni soogay wax sëriñ bi mhm. li nga xam ni bokk na ci dund gi warees na ci wax ba bis boo waxul sax nu xam ni daan nga wax ba dara xewagul ndax lu si ne nag waxuma la njiit de mhm. lu si ne rek kenn ku ne xool ko ci sa bopp ak nu mu mënti demee a ah jigéen ñi nag yaakaaruma ni yaakaaruma ndax seetaa la jigéen ñi kenn ëppatu leen doole ci réew mi de fi mu nii ah yaakaaruma ko nag jigéen ñi noo am nañu doole ci réew mi baa sax ci àdduna bi moo tax ma ni dama jàpp ni xëy na am na lu ñuy topp ñoom walla lu ñuy bàyyi xel walla lu ñuy xaar ci seen communication waaye ñaar kay war na waxuma la wax kese de mm-hmm. wax ak massawu ji waaw wax ak massawu ji waaw te ñaan yàlla gis ña nga xam ni ñi ngi ko doon def nu xool ban taxawaay la ñuy am ci ñoom ngir nu ba ko te daanu ko ba ci kàttanu yàlla moom day metti rek rey yàlla rekk moo ko moom yàlla rek sañ a rey yàlla rek moo sañ yàlla kesee ko sañ mhm. kon loolu noonu jekkul jaaduwul. ci gàttal. jërëjëf Cheikh Moustapha mu mel ni tey jii dégg naa la sa biir wax nga doon wax maanaam solution am na ci. ci kaw ne sa bopp ba. lu la laal yàqu. waaw surtout. ma bëggoon tam loolu ngeen ñu ci leeral naka la nit mën a def ci def boppam poson ba lu ko laal yàqu. sëriñ bi mën na nekk. Mhm. bu baax. waaw sëriñ bi. Mhm. man gisuma lu alxuraan indiwul. gisuma ko nag mhm. naa la. alxuraan day daw ci saas yu doy waar yoo xam ni benn bokk ci ak boromam mhm. sëriñ bi dafa am foo xam ni buñ fa tolloo mhm. lu nu muslu nan ko xeeb lu nu léemu nan ko xeeb mhm. lu nu sangu nanu ko xeeb ndax àdduna bi moo fi toll ndax boo ko sawarut def bis buñ la ko defee loo ca def danga ko xeeb nu bàyyi xel loolu am na am na yoo xam ni boo ko dee jëfandikoo rek ci ayatul kursi sëriñ bi hmm. ku ni la woon dóor nee naa la dugg hôpital génneewu ko fa hmm. génneewu ko fa di génneewu dugg nii rek génn hmm. déedéet loolu du moo ko fay génnee dóor rek laa la wax ayatul kursi rek laa wax <laughs> ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw am na ñaan yoo xam ni man ñemewu ma ko wax sax ci kaw antenne. <laughs> ndax doy waar ga waaw doy waar ga waaw noonu noonu du la jege fenn ci àdduna waaw du la jege fenn ci àdduna hmm. génn góor nag daan na ma ko wax nee na euh, gàllaaj am na yoo xam ni léeg am na noon boo xam ni moom la la yàlla dottoo ni sa wërsëg moom la ko yàlla jaarale boo ko faatee nag mu si baam ma ni ko kon boo ko mënul faati na na nga aaru mu ni waaw kay mën na ne waaw hmm. ah, <laughs> ah nit mi ngi lay fay de hmm. waaye moo lay gën a bañ ci àdduna day am waaw ku bar ay nit a ngi toog ba tàyyi ni sama kilifa gu bees gii nu ne si palaas bii nu indi ko fi mm-hmm. manuma porte loolu lan la mm-hmm. loo ko def defoo ko dara waxoo ko dara liggéey boole leen mm-hmm. mu lay fitnaal ba nga bind sa leetaru démission ngir lan moom am na kum fa bëgg indi wala kat nii ak naaw ak na le kooku noonu la ah, waaw noonu waaw boo ko reyee baarele directeur waaye nan ngay def ba mu mucc nan ngay def ba am jàmm nan ngay def ba am suturu nan ngay def ba sunu boroom aar la am na hmm. am na yépp kenn mënu ko wax ci kaw hmm. waaye am na ñun daal kum ci man ci doon nga aarook sa jaboot moyens yi du fi jeex hmm. jàmm ji du fi jeex sutura fi du ci jeex jalaal am na te du la teree am jamaal waaw jalaal am na Ah, waaw bu baax sax te du la tere am jamaal nag moo tax il faut bàyyi xel loolu waaw mhm. ah, waaye naan amul solo amul solo bis buñ la ko solee si nga xam ne am na solo. wallaay am na solo yal na yàlla dolli sutura incha allah allahumma amiin mi ngi noonu sëriñ bi kon daal solution bi moom na ci nañ nañ ci jokkoo ak Cheikh Moustapha su ko defee ndax am na ci loolu moom du waxi kaw tu warta génn ndax euh, li ngay faral di wax pirate yi dañoo bëri te te pirate bi sax garaalu waaye kii dégg nga joxe hmm. dara hmm. te xamul lan ak lan la war a àndal wala code secret ba lan la mu dem hmm. laal ko mu jural ko loraange moo tax doo bëgg di wax yenn yi ci kaw antenne bi tam dafa jar ñu ciy bàyyi xel macha allah rabbi bokk na ci itam xam naa rek ci actualité fi ma ko bëgg a jeexle rek mooy suñu suñu suñu mbokk moomu di Idrissa Gana Gueye mm-hmm. yaa ngi dégg coow li mm-hmm. ak équipe ba muy football mm-hmm. tubaab yi ñoom ku ne xam na ni moom daanaka wàllum góor jigéen ak wàllum lobby yooyu moom dañ cee bëri mayo bi mu war a sol ñu def ci seen marque yi mun leen di ko sol ndax moom jullit la bokk ci lii gars yi indi ko coow loo xamante ni daanaka jéggi na dayo tey ji ban conseil nga koy jox parce que man jàpp naa ni moom tey ji def na waree fam jàpp naa def na wareefam mhm. ci sama xalaat bu gàtt nag mhm. waaye gannaaw yéen itam yàlla da leen xam-xam mhm. rawatina ci wàllu woowu ci diggante xidma bi muy xidma foofu noonu ak diine ji mu bokk tam waa xam nga dafa delloo rekk yàlla cër bi mu ko jox dafa xamal ni ñun waru leen dem fu ne ngeen yaakaar lu leen defloo loo rekk ngeen def ko moom dafa jàngale rekk ah surtout daf leen xamal ni mhm. sama réew di ma suivre ak mu ñàkk ma bañ suivre mhm. am na ku may suivre muy allah subhanahu wa taala daf leen xamal ni mhm. man sama ndey jullit la man jullit laa man sama baay jullit la samay mbokk jullit la moom dafa leen xamal ni man milliard duma ko weccoo ak million mhm. <laughs> yoo nag léeg-léeg dañ la fekk sa biir bàmmeel milliard fi nga koy bàyyi mhm. moom day bu dee trophée bu nuy takkale mënees mhm. na ko takkal ndax jël na ko nag ndaxte nu jël alal jox la nga delloo loolu leneen la waaye nu nar jël sa ngor hmm. lañ ko nga delloo hmm. loolu beneen affaire la waaye nu nar jël sa ngëm-ngëm sànk ko te ñi koy def am seen ngëm-ngëm ba mu jaral leen volontaire ba ñay xool ñay volontaire nu bëgg ko volontaire seen kaw hmm. loolu sëriñ bi yow nga riposté nga samp fi nga samp xamal ni leen gaw ma leen yàllaa ma booleek yéen mhm. waaye man yàlla mi ma bind laa gëm loolu pourtant de mhm. am na suñuy njiit yu nangu yooyu de ah am na de bu baax ndax am na ñoo xam ne léeg daan leen dugal ci roq yoo xam ne dañ naan leen guux gee fi am ni naan la amul solo fi ci roq bi la rek mhm. ah déedéet roq ba am na ko fa ne da nga ko gisul wallaahi da ko gisul <laughs> te mi ngi ci lépp ñi ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanalit nawleem ya nga xam ni war na nu mel ni moom te am na sax ñu mel ni moom mm-hmm. ndax nag loolu mu def noonu rëy na trop wallaay man de rëy na ci man mm-hmm. hmm. rëy na lool ci réew mi it bu dee xam na ko waaye rëy na lool ci lislaam mm-hmm. ndax dalal na sunu xel du moom moo nii moom moo nii ngénteel ngénte nu xamut déedéet ndaxte moom mi ngi mi ngi bàyyi xel lu bari sax mm-hmm. mi ngi naan déedéet du àdduna bi daf ma xam rek mm-hmm. lu ma neex def mm-hmm. walla loolu ma def loo rek dama koy def sëriñ bi sant nanu ko gërëm nanu ko te di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam ak nawleem yi nga xam ni mhm. bëgg nañu mel ni moom sax tax sax ta mel ni moom mhm. ndax am na ñoo xam ni la bañ rek moom la ñuy bañ waaye di ko waxit ñeneen ña nga xam ni nangu nañu ko mhm. war nañu am gàcc ci loolu ci loolu surtout am na ca nag ndax loo gis nit di ko bañ am na ku ni xëtt xëttaaral yambare wéradi wayadi ñàkk bañ gëm boppam ak boromam. te hmm. da koy nangu. am na nag. Hmm. ndax foo fu la ŋaangalee. Hmm. pour nga ngepp da gis ku naan xépp ba bay bëgg a yut. waaye loolu ñàkk bañ gëm yàlla la. wallahi kontaan nañ ci moom. yàlla xam na ko. macha yàlla na ko yàlla aar. yàlla ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla suturaal. lu mu ci mën ti daj nag. yàlla dana ko jox lu ko gën lu mu ci manti daj mm-hmm. te dana ci am ndam nag ndax ña ko doon defloo daanu ko respecté mm-hmm. <laughs> te fum mu manti dem dootu ko fa séenati mm-hmm. ndax xam nañu ni moom am na lu muy bëgg ak lu muy bañ. nee naa koy jihaatu nafsi gu doy war na def ndax fu mu jëmati marque ba dafa dafa porte porte moom actuellement marque bi la porte yanu waaw ne diine laay dund ba waaw déet moom looluy mhm. mhm. te looluy dëgg wallaahi waaye nag loolu du ko réccu mhm. yàlla na ko yàlla fay amiin yaa rabbi yàlla na ko yàlla fay amiin yaa rabbi allah mu doon lu am solo wax dëgg yàlla euh, jàmbaar la de gaynde gi mu doon daal daa mel ni wuyoo na ko moom yàlla na yàlla gën ko taxaw ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam bokk na ci itam tey ji ñu bëggoon nga waxtaan ñu tuuti ci secret yi nga xamante ni mooy secret fatihatul kitab mhm. nga wax ñu ci tuuti ak mhm. secret yaasin mhm. ndax gannaaw réew mi moom dafa mel ni kaaraange moom daa mel ni amatu fi wala am na fi nga waaye dafa féete ci wet wala gars yi dañ koo sàggane bëggoon daal ñaar yi nga wax ñu lan a doomu aadama yi yaasin moom xam sa yëfa moom <laughs> tubaarkal la <laughs> waaye daal mook fatiha yi daal waaw fatiha moom sëriñ bi mooy téere bi macha allah mooy kaamil <laughs> ndax bismillah rahmaani rahim rek. Mhm. kaamil baa ngi ci. wallaahi ndeysaan. te secret alxuraan yi yëpp. Mhm. ngi ci Fatiha. sëriñ bi Fatiha day ubbee. Mhm. ci wërsëg lu yaatu lool. Fatiha ak waa waa waa waa waa Soissor. leneen la. leneen la moom. faatiha ak yaxutaan mm-hmm. donkotaan mm-hmm. ak gémmiñu tan sell ba mm-hmm. leneen la moom faatiha lu garaaw laa lay wax <laughs> ah. waaye faatiha ak juróom ñaari sa sajjaada yoo wërale cib daxaar bu ne nga toog ca jàng ca baa nga bàyyi ba yoor yoor nga dawal ci ñaari ràkkaa jublu penku ba mhm. sëriñ bi foo bëgg a samp samp te kenn du la sempi hmm? moom faatiha moom faatiha laa la wax foo bëgg a samp samp te kenn du la sempi mhm. waaw faatiha boo demee ci basmala mhm. day yokk darajey nit nit mën na dem fu ko kenn dul tuutale am na kenn du la tuutal waaw mm-hmm. ah, ak lu nu mën a gëm mm-hmm. ak lu mën a doon seen diine ñoom dañu lay fonk mm-hmm. kenn du la tuutal faatiha mën na la def loo xam ne doo dem fenn sax di tardeel sa bopp ci deux heures nga war a dem ak da toog di xaar dangay da rang di guddal xanaa yow nga xool kay <laughs> bëgg teg mbir yi rek sa yoon <laughs> ci gàttal mm-hmm. waaw sëriñ bi Fatiha mën nay régler hmm? waaw Fatiha mën na faj ulcère moom Fatiha Fatiha mën na orienté doom ju wetu moom Fatiha Fatiha mën na taxawal ëmb Fatiha mën na génnee doom ju réer ci biir génnee laa la wax de mhm. ñi ngi écho gisuñu ko mhm. xam nga nag du doom yëpp la écho di gis waaye Fatiha mën na la ko wan ko wax <laughs> moom Fatiha te maa la ko wax mhm. ci leget ci ndox baa xar li nu naan xar mooy li mag ñi daan yor daan ci def laax te mu dëgër te diis law bay xam nanu ko nga jël ko waaw maa la ko wax moom Fatiha faatiha man nga fexe ba man na fexe ba nga bare ay doom mhm. waaye yaa ngi koy liggéey ci naat moom faatiha ca nen ba ak ca dunq ba mhm. moom faatiha sëriñ bi doywaar waar gu mu doy moo tax pour mu dugg sax li gën a doy ma wax la ko sax faatiha rek gaaw na loolu lool lool lool lool sax pour nga xam ni am na doole gaaw na loolu ci intervenir wala intermédiaire wala sax sauver ci biir bàmmeel mhm. xam nga ci kaw dund la wax mhm. ci biir bàmmeel <laughs> xaw ma dégg nga wax jël <laughs> jël déet ne kay biir fan <laughs> la basma la bokk mhm. fan la bokk waaw basma la basma bokk ci faatiha la bokk ah déggoo ma de xanaa fi fi ñaatal fi boo koy def lan ngay fi daawul nit ki ni fi fan la ne. Mhm. barsax xam nga nit daanu ko fi daawul dana fi boppam te mi ngi dund. Mhm. waaye am na ku ko gën a soxla. mi ci biir suuf. Mhm. faatee da koy yónni léegi mu dem léegi. est te boo bëggee laaj sax mhm. dana la question dana la delloo laaj bi te lii ma la wax mooy li gën a yomb dana paanal moteur dana defar moteur <laughs> moom Fatiha nit xol bi danay tàng jër mhm. xol bi danay tàng rek nga jël Fatiha jël meew mu tàmmaliwul nag way mhm. nga boole ko ak moom sëriñ bi nga jàng fatiha douze douze nga jàng fatiha douze jàng salatu na bi douze hmm. nga jàng ko ba pare nga def ko fii bu doon fit wi xol baa ngi bëgg a génn sax tootu ko defeti tey dal ci saa si moom fatiha xaw ma lu fatiha mënut waaw ah. bu ni la fii jamaa am na fi hmm. fatiha mën na la ko seetal ba gis ko ci kayit gooy bind rek nag day naaw bu la neexee bàyyi ko fa boo xëyee naaw fa mu nekk loo fa wàqi da nga fa fekk dencu jaamur baa nga fekk fa lu mel ni jama baa muy doon jama moom fàttal lesi ne lépp kenn sañu ko wax waxaguma la de boo jëlee cër nangam sàngam cëru lii boole kook faatiha reenu lii boole kook faatiha boole lii pour pour mu leer <laughs> waaw kon sëriñ bi lu faatiha manul amut Mm-hmm. te nee naa la dogot dogotee gunu ko faatiha jinne yi am na mm-hmm. waaw am na mm-hmm. <laughs> faatiha jinne am na waaw doo wax lu la wóorut loo bëgg a xam-xam ko yàlla sama borom di la suturaan loo ci bëgg faj-faj ko moom faatiha yi néy loo bëgg faj-faj ko am na waaw sëriñ bi man faatiha mën naa ci wax fii ba suba keneen mën a ñëw wax fii ba suba keneen mën a ñëw wax te mën na bañ jaar sax ci li muy waxaat Fatiha moo doy waxaat moo tax dama naan sax ñun li nu jege xamuñu xamuñu ko yàlla xam na ko mi ngi noonu tubaarkal tubaarkal ah mi ngi noonu tubaarkal la mu doon lu am solo kon daal fi ne fi ne la suñu borom waxoon ne maanaam mboolem mboolem mboolem loo xamante ni tawat la wala jàngoro daal euh, bu fi nekkee rek la koy saafara mu ngi ci wet gi ñu teg. bu baax kon bokk na ci li ngay wax naan fi ne ñun li ñu am sax xamuñu ko li ñu jege lépp xamuñu ko. Mm-hmm. li ñu wax ci Fatim moom daanaka daf mel ni tënk na lépp. Mm-hmm. waaye tey jii Yaasin mi nga xamante ni moom saxarite yow. Mm-hmm. borom xam-xam yi dañu dëppoo ni képp ku mokkal Yaasin sa yàpp yaram aram na safar yaasiin juróom-ñaari soccu daxaar mm-hmm. yaasiin xasum daxaar baa guy mm-hmm. yaasiin xasum kàdd mm-hmm. <laughs> yaasiin xasum kel yaasiin xasum xay xasum xay moom boo koy utiliser dëgg ku la liggéey balaa muy dee dof xasum xay yaasiin ak xasum xay ku la liggéey balaa muy balaa muy dee dof secret baa ngi nekk ci <laughs> salaamoon ja ak innama amruhu isa arada sa nexloo kun ja fa ngay boo moytul si ngay dugaleew ca waaja ci kan kun jooje mm-hmm. boo moytul si ngay dugale ci waaja ci kan <laughs> moom yaasin yaasin dana defar sëy mm-hmm. yaasin dana ubbi wërsëg mm-hmm. yaasin dana fajuk rab mhm. yaasin dana dàq rab mhm. yaasin issee la ci rab hmm. Hmm. justice bu mu mënti doon moom yaasin waaw <laughs> ah, te yaasin international it am na di hmm. waaw <laughs> am na xam nga yaasin international xam nga alxuraan moom international la mhm. waaye yaasin international nga toog fi nga toog di lancé muy dem waaw sëriñ bi dama ami jafe-jafe ba jàngal la yaasin wut juróom ñaari kirdon <laughs> balaay bët di set jàmm danaan ñooy hmm? waaw ma jàngal la yaasin xar-xaal ñetti wet yi dan <laughs> la daan opéré ci doom dan daan opéré ci feebar dala daan opéré ci kyste noo day dañ bëtu xaal bu ne benn yaasin waaye turu nit ki nga ciy dugal daal di delloowaat xam-xama doy waa sëñ bi <laughs> maanaam daal da ngay opéré xaal ji fi ne nii jàng ci daal di koy tëjaat ñetti wet kay laa ilaha illallah nit li ngay gën sonal weesuwul fii mm-hmm. fii su ma waxee fii nag jël naa fii. Mhm. beneen bi fii la. Mhm. ci diggu kanam. <laughs> yii moo sonal doomi aadama. moo tax ma ni la fu geste di nekk lu ci ëpp fii la. Mhm. te loolu ci gën a yomb. <laughs> yaasin dafa doy waar. nee naa la moom rekk ngay jàngal rab mu daanu kiris. moom rek ngay jàngal nit mu doon tëb di daal mu ni gàng daanu hmm. moom rekk ngay jàngal nit mu mel ni dafa am lu doon bëgg tukkal àddunaam te loola bëgg a génn waaye génnin nga rek lam fay daj hmm. beneen affaire la <laughs> waaw moo tax 41 yaasin doy waar 66 hmm. doy te benn yaasin nit mën na ci jàngi 41 benn yaasin nit mën na ci jàngi 66 yaasin dana indi booloo yaasin dana ubbi nit yaasin dana tax ba sa yaakaar du mën a tas yaasin dana tax ba bu la nit di war danga koy xam moom yaasin waaw te yaasin mën nga ci gëstu mm-hmm. waxaguma la nag yaa suñu jinne it moom comme Fatiha jinne mm-hmm. am na ah, waaw <laughs> am na yaasin goo xam ni <laughs> malaayka yi nga ciy sédd mm-hmm. te am nañ ci jël ay cër yu rëy rëy sax waaw léeg nga dégg nit di jàng yaasin ñaan yaa rat fa yaa il yaa maska yaa il yaa xaska yaa il yaa xakka yaa il ah ah ah, ah. Mm-hmm. <laughs> kooku xam na li muy jàng nag waaw ku <laughs> ko nag waaw ah, xam na ko nag moo tax nag sëriñ bi mhm. mbir yi dafa doy waar ndeysaan hmm. moo tax sëriñ bi xamuma ku ne sañ na ko waaye amul moom amul waaw ëpp naay warul sax mhm. moo tax sëriñ bi ah yaasin day fajte ndeysaan torop sax masha Allah waaw te tuuti lan la ci wax tuuti lan la ci wax wallaay ah, waaye yaasin li muy faj kenn mënu ko xam kenn mënu ko xam waxaguma la nag yaasin goo julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa a waxaguma la de yaasin goo xam ni danga nga jël yaa allahu ci lim nga nga tënk ko waxaguma la de yaasin goo xam ni da nga ko boolee muhammadu rasulillahi gina ci inna fatana laka fatan mubinan waxaguma la de yaasin joo xam ni danga jël ñetti inna anzalnaaw ñetti wasamaay wa taarixi sëriñ bi waxaguma la lool de <laughs> am na yaasin loo ciy jàng bu la neexee bu dee guerre la tollu tollu gi na ay summil sa gilet teg baldu du la rey bal du la rey billaahi bal la rey barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bal la rey moom yaasin <laughs> yaasin bu la neexee nga jël ñetti bulu weñ yi ni sànni bul yu ndaw yi mm-hmm. nga toggaale koog laax jàng ci yaasin ci lim sëriñ bi nga pare lekkalaax boobu fu la neex taxawal waaye bul tooñ mm-hmm. dana la aar ci ñaari mbir dana la aar ci seytaani dana la aar ci ay weñ gu mënti doon te weñ du la mënal dara mm-hmm. ci gàttal waaw mi ngi noonu tubarkalla ñaari bulu weñ rek waaw ñett lay <laughs> doon <laughs> jërëjëf Cheikh Moustapha xam-xam daal liñ daan fi ne daanaka xaw ma bokk ci. Hmm. wax dëgg yàlla moom nga ñuy woon saa su ne. te te looloo waral soppi yi di gën di bëri. ñoom itam hmm. kenn ku ne di gën di yaatal yëf fi macha allah rabbi. Hmm. laxat jaakum rasul dañoo dégg maanaam kaaraange. te gannaaw réew mi moom aarootul. nun bëgg na noo aaru. lan nga ñu mën a wax ci laxat jaakum. baax na. waaye la. ngëneel la. Sayyiduna Muhammad am na ci cër. <laughs> li ci yenente bi am ci regoroon na tax sax mu mm-hmm. doon lu am solo waaye nee naa la te mm-hmm. seytaane yabu ko mm-hmm. <laughs> moo tax mi na anfusikum am na waaye mi na anfusakum it am na <laughs> waaw fusikum fase ko <laughs> ñaari yëpp it am <laughs> ndeysaan ah, ah. na anfusakum am na mm. <laughs> laxat jaakum mm-hmm. baax na ci xale nit koy jàngal laxat jaakum baax na ci mag muy faral di jàmbati tànk ak di faral di tiit mm-hmm. baax na ci doomi aadama bu mën ci doon mm-hmm. xaguma laxat jaakum laurier mm. waxaguma la laxat jaa akum ak garab gunu naan te muy faj ween yi rek waaye mi ngi suma xel bi mm-hmm. euh, dana ñëwaat léegi mm-hmm. waxaguma la boobu waxaguma la laxat jaa akum goo xam ni lim ci fàllaxi lim ci naasi lim ci tabat yadda mm-hmm. lim ci alamtara waxaguma la boobu <laughs> waxaguma boobu sax waxaguma la laxat jaakum bi nga xam ni day taamu waxtu mhm. day taamu waxtu waaw am na <laughs> waxaguma la la waxat jaakum bi nga xam ni dangay ngay nuggal ndox mu tàng te mu te day nugg mhm. waxaguma la boobu te bu ci ne ak ca la muy dox maa la ko wax moom laxat jaakum waaw moo tax laxat jaakum rasulun min anfusikum mhm. asisun alayhi ma nintum leneen la waaye kum jooju moo doy waar. Hmm. Hmm. am na yu cene nag. ci ay bagaas moo tax sëriñ bi li ngay laaj ni am na solo torop. Hmm. waaye sant nañu yàlla. ci bi nu ko laajee. nu man ci tontu. ci ndimbalu yàlla ak ci yërmaandeem. lii ma la ci wax moo ci gën a néew. moom ci la xat jaaku macha allah waaw ah, tubaarkaal tubaarkaal ah. jërëjëf xanaa sant rek tey ñaan su yàlla moom mu gën laa dëgëral te gën laa wéral ba yéen yi nga naan yëpp nga yeggale ko ci rajo yonent yàlla Muhammad xanaa ni ñuy def rek mooy dañ lay bàyyi rek nga daal di joxe tey li ngay may soppee yeeg am di jàmm surtout nag tey ji moom xam naa li ngi leen di may moom na jëm ci kaaraange rek hmm. ndax gannaaw <laughs> kaaraange daal fii ne man moom moo ma tiital fi mu toll nii moom boole ko xanaa kàddu yu mujj yi ñu yëkkatee ko jotaay bi macha allah rabbi sëriñ bi kàddu yu mucc yi mooy jaami yàlla yi am yërmande hmm. tey yéenante jàmm tey suturaalante loolu naa koy dénkaane hmm. tey moytu hmm. tooñ tey moytu tooñ sëriñ bi buñ ko dee def yàlla dañu dimbali daanu wér daanu wéeru daanu mucc te daanu mos loolu laay dénkaane bu dee ci wàllu musluwaay nag hmm. génnul sal euh, génnul yaa salaamun hmm. ndax man sëriñ bi yaa salaamun laay musloo man yaa salaamun 313 hmm. ba 29 ba 129 man génnuma foofu wax dëgg yàlla te su ma ko defee suma xel day dal te dana yombal suma wërsëg te duma ci am benn doodaan waaw mooy jéggi gu du metti mm-hmm. na ko nit ñi di def mm-hmm. di ko ëf ci ndox di ko jox seenu njaboot nii naan di ko ëf ci ndox di ko jox seeni njaboot nii sangu tanu bañ di ko sangoo ci duus mm-hmm. di ko ëf di leen koy raayale ci seen kanam yi te ku koy def sa doom du mas a jommi may naa loolu <laughs> du mas a jommi du mas a am guwaatar buy génn ci ay bëtam yaa salaamun gi may wax de <laughs> waaw moo tax nag li tax ma ne ci ngoy rek jàpp ci tawaaba hmm. li ma xam ci ay turu yàlla bare na lool sax waaye nag xam naa li may wax lii daal bu ko dëkkee yàlla sama borom dana leen defal jàmm hmm. defal leen sutura sëriñ bi di ñaanal nag hmm. jaboot gi ci àll bi xam ni dañuy jàpp ci sunu liggéey yi di ci def lu ne ah, di ci daj lu ne yàggul dara rek kenn indil nañu ordinateur bu seer lool sax lool lool mhm. ngir yàlla ak yonent bi ngir li ñuy daj ci jaami yàlla yi mhm. ata lool rek laa mën a wax de ndax def na ca yeneen yu mhm. kenn mënul wax yéeneem rëy lool muy ko baax di ku tedd yàlla na yàlla guddal fanam su ma waxee rek xam na <laughs> waaw su ma waxee rek xam na waaw kon yàlla na ko yàlla dolli sagal mhm. yàlla na ko yàlla dolli mhm, sutura di ko ñaanalit ñépp de mhm. ndax yii yéene googu ñi ko bëggit bare na torop ñaan gi nii ñaanal mel na na loolu yéene gën a am ci men ñun mhm. mel nañ na loolu suivre gi ñuy suivre te yàlla tax mhm. mel nañ na loolu am na ñoo xam ni buñ la déggee sax danaan alhamdulilahi rabbil alamin kon nga xam ni xéewal gi leen boole ndawut mhm. kon loolu sëriñ bi ñu ngi ci santaat yàlla ci ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm defal leen wér defal leen sutura di ñaanal sekk ma ca France su ma waxee it xam na bëggul ma sonn ci dara bëggul ma jaaxle ci dara. Mhm. ngir lan mooy lan mooy euh, xam nga nit dana doon sa kilifa. Mhm. waaye bis bu ne nga gën ko xamal ni sama. kilifa nga te sëriñ bi ñun toogunu mhm. di xaar lu nu nit de jox. ku nuy àndal yàllaay tax nu ànd ak yow. ci yàlla ji nag boo nu ci bawee it. ñun nu àndaat ak yàlla continuer sunu yoon. ndax yàlla la xam. yàlla la nu gëm. yàlla la topp. dundewuñu wërsëgu kenn lu dul wërsëgu yàlla te defe naa ñéppit noonu lanu ko war a di dunde mm-hmm. wërsëgu kenn lu dul wërsëgu yàlla wërsëgu yàlla nag kamuy neex mm. kamuy naqadi mm-hmm. ka ko bëgg mm-hmm. ak kamu bañ yépp la ci ëpp solo mooy taw féexu sunu borom te yàlla nañ ko yàlla defal ak di leen ñaanal yàlla wér ak sutura amiin yaa rabbal alamin jërëjëf Cheikh Moustapha yal na yàlla nangu ñaan yépp ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam def ci dégg akuk topp ba lépp itam doon njëriñ rek li ñuy faral di wax saa su ne gannaaw télé bi moom li ko tax a jóg mooy solution solution yi nga xam ne génnaat na fi rawatina fi jamono toll ak tolluwaayam kon sant bu baax a baax ñaanal la sama borom taxawu la guddal fan mi te wéral cër yi te yéggale yéene yi nga xamante ni naalal nga ko askan wi naalal ko njaboot gépp itam ci daraja yonent yàlla Muhammad waaye itam sant bu baax a baax mboolem yi am di jàmm yi xarit yi rawatina ñu ne bitim réew xamante ni émission yi la ñuy wéttalikoo maanaam di ci jaaj teguwaat ci ngir mën a tegaat seen bopp ci siraatal musa yoon siraatal mustaqiim ñoom itam ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di la ñaanal kenn ku ci nekk la mu bëgg la mu yéene lay mébétam suñu borom mi dul jeexal dara yàlla na ko yàlla jàppandal ci daraja yonent yàlla Muhammad soppe yooyu indi teraanga yooyu tamit mm. ak ñeneen ñi mel ni ñoom mm. nga xam ne seen yéene man li may dégg ci ay nit ñu naan man bu ma mm. ñëwee Sénégal bu ma ñëwee Sénégal du jeex nga xam ne li ngay wax kenn ku ci ne am na yéene joo xamante ne tey jii fi mu ne daanaka mënul ci wax dara li muy bu def rek mooy jóg rek jëf ko kon ñoom itam ñoom ñëpp ñoo ngi ñaan yàlla na borom yokku seen wërsëg. Mhm. dëgëral seen taxawaay mhm. waaye sàmm leen aar leen mhm. ba ñoom tamit wax dëgg yàlla yéen yi ñu am tam sama borom defal leen ci lu kawe seen jot ci daraje yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam sant bu baax a baax tamit wax dëgg yàlla équipe bi nga xamante ni mm. ñooy taxaw liggéey beeg yépp ci caméra yi ci mm. ci montage yeeg ci mm. lépp macha allah rabi assistant yeeg assistante yeeg ñëpp di leen ñaanal ñoom itam sama borom may la ñu yeggale ak sago ci daraje yoon ci yàlla Muhammad sant gërëm jox leen dig daje incha allah rabi ci suñu beneen jotee ak seen émission yi nga xam noonu la leen jëkkal fii ci Amsa TV la télé solution bienvenue sur